ne waye bisu tay bi ma ngi profiter ngir geureum wa senegal xawmu luma defal senegal ne man president xawmu luma defal senegal ne xawma man lan la defal senegalais yi dafa melni lepp senegalais ñoko xam. ne waaye ne maa ngi gërëm Sénégal gépp ne fi ngërëm mën a yem ne ndax kat nii nu ma manifester seen santiment ci man ne dafa xaw a doy waar ne sama voyage bi ma njëkk a ñëw nee ñu tàmbalee ko ci aéroport né tàmbale ko aéroport Blaise Diagne né di dox né ba kër gi fi ma dëkk lolou bari wu ma ma gis président yu am loolu nek ci nguur ba jóge ci nguur wala ba tukkuwaat ñew sa rew ñu téru la téru mu tol non né loolu loolu xew keroog Sénégal bëri ma ko gis ci bi ma nekkee président mais pourtant gis naa adduna bi que mais président yëpp gis naa de ak seen mbooloo waaye keroog li ma gis keroog ne amul ci àdduna ne benn président né, boo xam ne am nga ko ci bi nga nekkee ci pouvoir ne nag rawatina bi nga jugee ci pouvoir nee Konté nag ne faw nag ma gërëm sénégalais nee maa ngi leen di gërëm fu gërëm mën a yem nee yàlla dogal na ni mag la euh, nee ndax màgget moom ne du feebar. état la rek ci évolution nit. ne état la rek suñu borom moo def lu ko neex. ne nga juddu. nekk nga mag. ne màgget. ne dee. yàlla na yéex. ne konte ne loolu bu ma koy wax ci

ne moom la la say bokk jox ne ndax suñu société africaine ne kenn ku ci nekk daf ci am rôle ne waxambaane am nañ ci rool jigéen ñi am nañ ci rôle ne adulte am nañ ci rôle ne mag ñi ne màgget ñi ne daal du ma mën lu dul waxaat waa Sénégal ni maa ngi leen di gërëm né président Papa Diop ne sa frère jóge na fi né malheureusement nekkuma fi woon ne maa ngi la koy jaal né fi may jeexale daal moo di ne yéen Sénégal ne yéen waa parti bi ne maa ngi leen di gërëm ne li ñuy wax ci suñu parti fraternité ne mooy bokk ndey ak baay ne tey jii moom ngeen wane waat ni tey ji parti bi ci loolu rek la nekk ne ngeen ñëw yéen ñëpp doo taxaw Papa Diop ne maa ngi leen di féliciter ci loolu ne bu leen ko bàyyi bukk ne topp leen ko rek ne PDS ne dafa nekk kuréel goo xam ne man damay dem ba mu jaaxal ma ne ndax kat militants yi ni ñu mel ne ci seen diggante ne kon maa ngi leen di gërëm présent président Papa Diop ne sa ñaar ñi nga xam ne jóge nañ fi ne maa ngi ñaan yàlla suñu borom ne yàlla na yàlla jéggal leen ne yàlla na yàlla xare leen àjjana ne wasalaam alhamdulilah